dina jébbal waa Sédhiou lu tolloog quatre cent milliards ndaxte Sédhiou dëkk bu ñu war a suqali la waa États-Unis nee nañ wàllum troisième mandat daal ñoom daal duñ ci wax ndaxte ay étranger extérieur lañ xalaatuñu wax ci wàllum troisième mandat ci Sénégal Coumba Gawlo Seck démb def na ab déclaration wante nee na du ne dañ kaa liggéey liggéeyuñ ko li ko jaaxal daal mooy mbir yi lënd lëndamoon na ci bopp bi kurus xàmmeetul woon lu weex ak lu ñuul. ñi nga xamante ne ni benn waay la bu nekk fële ca Saint-Louis dafa daal di màndi yor jaas yi wutali yaay ji kon màndi baaxul nañ moytu sàngara njëg yi ñu wàññi woon lu jëm ci wàllum daare alimentaire yi ci boutique gu Sénégal yi lu toll quatre-vingt-dix boutiques amul lenn loo xamante ne jëfee nañ ko ci ndogal yu état bi jëloon wante nag convoqué nañ leen ni ki tey kon gars yi ñu jàmm.